Euh, mais Sénégal euh, semaine dernière dañoo vivre événement yu yu yu yu bëree bëri euh, voté nañu une loi d'amnistie à l'Assemblée nationale euh, ba ko président de la République Macky Sall promulgué dañoo. appliquer euh, mettre en œuvre euh, les recommandations et les dispositions de cette loi d'amnistie et mu am euh, mbir moo xam ne nag bàyyi woon nañ ci xel mu di la libération de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye et de toutes les personnes détenues euh, dans le cadre des euh, des de, des tensions politiques entre deux mille vingt et le vingt cinq euh, et vingt cinq février euh, deux mille vingt quatre Ousmane Sonko Bassirou jomay ñu libéré leen de prison ñu def une procession même euh, pour célébrer cette cette libération boobule est-ce que yow mos nga njort ne. Euh, pas pas Bassirou Diomaye parce que euh, yàgg nañ wax waxu liberation mais est-ce que njortoon nga ne euh, mbir mi noonu lay dénoué woo concernant Ousmane Sonko. Ousmane Sonko xamoon naa ne du yàgg kaso loolu waxoon naa ko yow ci sa émission ma ne la fii ba élection yi wala liy toog tuuti élection yi dafay génn parce que argument yu bari yu ma tegoon. sant ko moo taxoon ma wax ni moom du yàgg kasu donc génnam maanaam génninam moo ma xaw a bett mais génnam bettu ma ah, parce que man xamoon naa ni soit la génn avant élection bi wala tout juste après élection bi. lan moo la bett ci génnam. Euh, ni mu génnee ak moom euh, ni ma jàppoon ni moom noonu la taxawee ci politique dafa wute. man dama jàppoon ne dafay xam ni de toute façon dans tous les cas de figure moom dafay génn donc jarul woon yàkkamti bi ak négocier ak Macky Sall négociation yu xool yi jaru ko parce que ñaar rek a am soit cas am mu génn wala même beneen cas gagné dans le cadre d'une réconciliation nationale mu génn mais en tout état de cause moom dafa génn. mais sur ce point là moom euh, hmm. ba mu defee conférence de presse le lendemain. Euh, dafa ne waxtaan am na waxtaan am na waxtaane nañu ñetti bopp. bala ngay àgg bala ngay àgg ñu waxtaanee bi waxtaan am na ba tudd hmm? euh, waxoon nga ne waxtaan am nga. désigné woon nga ñi nga xam ne euh, xëy na ñoom ñoo faciliter waxtaan boobu. et sur ça Ousmane Sonko a confirmé que waxtaan am na mais nee na li waxtaan di am yépp euh, ñetti ponk waxtaane nañu ko te ñetti ponk yooyu amul benn boo xam ne euh, moom nangu na ko lépp la la lépp la rejeté peut-être que c'est ça la différence euh, entre ce qui a été dit antérieurement et ce qu'il a dit euh, vendredi dernier. Euh, comme waxtaan am na te protocole Cap Manuel am na rek mooy ñun li ñu waxoon am na kon ñi ñu ñi doon saaga ñëpp war nañoo war nañoo baax benn boobu njëkk bi ci topp mooy may mu la man mënu ma koo seqe yow ma tëj la kaso man nekk ci biti doon wax samay soxla yow nga nekk biir kaso yow ñu wax war a waxtaane ñetti point ñetti point yëpp yow nga bañ ko man li nga bëgg yëpp man ma defal la man sama xel nanguwul lool xëy na peut man si xam nga politicien ñoom dañoo muus lool xëy na man ñoo ma gën a ëpp xel mais man sama xel nanguwul lool. ba pare Bassirou Diomaye Faye ak leneen information bu am solo ni moom moo woo doomu am doomu Macky Sall loolu liñ ci war a jàngati ci politique mooy waxtaan ñoom ñoo ko sàkku yow yaa ngi kaso nga sàkku waxtaan ak man man maa ngi ci biti ñu waxtaanee ñetti point yow li nga bëggoon yëpp nga am ko man li ma bëggoon yëpp Ousmane Sonko bu waxul li mu dig Macky Sall histoire dina dem ba pour yow loo xam ni wax bu dofee koy dégg wax na yow waxtaan bi am na non seulement waxtaan bi am na mais dafa am une contrepartie à tous les actes posés par Macky est-ce que xel nangu na man ak yow ñu seq benn mbir yaa ngi kaso man maa la dugal kaso yow nga sàkku waxtaan ak man te numéro deux confirmé ko ñu waxtaan ci ñetti point yow nga bañ lépp yow li nga bëgg man ma defal la lépp loolu est xel nangu na ko ah man li sama xel nangu danga ci am information sur la contrepartie. am naa ci ay information yu dul jeex. lan nga ci am. mais xëy na Ousmane Sonko dina wax li mu promettre Macky Sall wala boog histoire dina dem ba révéler le vrai protocole du mais lan nga ci mën a wax ñi nga xam ne ñoo ñuy seet. li ma la mën a wax daal mooy amul Macky Sall bàyyi wu déglu rek par générosité parce que nag Macky Sall am na défaut yëpp. waaye dof ci politique moom defu ko ba xam intérêt ci politique defu yaa ngi dégg ba nga dox li ko soxal moom ak famille ak i mbokkam ak i intérêt ak sécurité ci politique aussi Macky Sall doxaale loolu donc xam naa ne Macky Sall avant muy causé acte yi am na garantie yu wóor garanti garanti de quelle nature bu concerne Macky Sall. xam nga dañuy xel détail bi histoire dina ko wane. da nga xëy na Ousmane Sonko dina ko mos a wax wala beneen recherche wala beneen journaliste wala beneen nit kuy xeltu dem ba un jour mu wax wala bind ko mais ce qui est mooy yëf yëpp la tey. mais Macky Sall lan lay gagné euh, parce que même dans son camp il y a eu de l'incompréhension euh, la loi d'amnistie a été très controversée elle a été votée malgré tout mais boo ci dans sa chapelle politique ñu bari dañoo mer euh, ci acte yi mu posé en direction de Ousmane Sonko et ses et hommes et les gens se demandent lan la Macky Sall gagné ci ci ci mbir mi yépp Macky Sall dafa bëggoon prolonger de deux ans non au départ voilà. ah. bi mu yëkkatee loolu bi mu yëkkatee non loolu loolu am na loolu sincère am na loolu ñëpp gis nañu ko bi tool yi bare ñu yóbbu ko ba ay décembre bi mu yëkkatee loolu est-ce que Karim Wade nag Ousmane Sonko dégg leen ñu wax daal. yow nee nga ba muy reporté euh, waxtaan na ceeg ñoom. ak Karim Wade ak Ousmane Sonko nañu wax dara à bi affaire bi amee donc may mun a de toute façon euh, lu yàgg fay man daal sama xel nanguwul te du mos nangu man maa nekk prison sama leer naa moo woo doomu président pour ñu waxtaan ak ñoom ñetti point lañ doon waxtaan man bañ naa lépp moom nangu na lépp loolu moom kenn mënu koo gëm loo ma gëm même su ma xamuloon Macky Sall mais li ma xam Macky Sall xam li muy fonctionné moo tax kenn mënu dugal loolu sama bopp ma gëm voilà. ba pare nag ba pare nag euh, bi am Sonko génnee ba léegi tawam ci Macky Sall parce que nag réew mi comme ni Kéba may wax rek guddi gi ñëpp dañuy tëdd waaye kenn du nelaw. man bi Ousmane Sonko déggee ne laa mos a dégg mu wax président Macky Sall tudd ñëpp nag ku ne mu wax la yàq la keteme ba mu des Macky mais Yérim euh, ni relation yi ni mu melee ni lu pacifié wu diggante Ousmane Sonko ak euh, Macky Sall Uh, Sonko sax dem na bi dem na ba naan uh, Amadou Ba dafa kàmbal Macky Sall uh, nee na am. Macky Sall du seen du seen. doon mais aujourd'hui euh, nii fi nii ma ne fi ñu dafa mel ni principal avocat Macky mooy mooy Ousmane. mooy Ousmane Sonko alors. Euh, waaw maanaam moo koy moo koy moo moo koy défendre euh, li ko naqari yi ko koy waxal ah na moom moom moo koy demee li ko li ko li ko naqari sax ci biir kaam ci biir kaam ci biir mag Ousmane Sonko moo koy kulóol. alors koy est-ce que loolu mën nañu yóbbu ñu ñu ñu posé wu une question euh, li ñu waxtaanee est-ce que Macky Sall la la concerné ak ëllëgam wala est-ce que le président a été de bonne foi c'est-à-dire ne man kat maa ngi dem euh, baax na ma pacifier euh, l'espace politique permettre au Sénégalais les blessures permettre aux Sénégalais de se de se de retrouver may euh, ma li ma xam daal ba xam ko mooy makisal Sall c'est pas quelqu'un qui fait des cadeaux en politique Macky Sall ku mu mos a xuloon mu xeex ak yow fii ci politique déparé ko ci Karim Wade laa di Khalifa Sall et cetera tànka demul ba am li bëgg ci yow ba jeex du la bàyyi. kon ñëpp gis nañ ko dafa ñu gën a donc li ci def nag may mun a encore une fois am nga wax dafa jooy ñu ni ko looy jooy mu ni dañ ma wax te wax jotagul mais man maa la xamal ci te doon naa garantie que li xew Cap Manuel yëpp ak discussion yëpp man maa la jox laa garantie que dana feeñ waaw def na ko bind wala ñu wax loolu moom vraiment jàppal